tey euh, comme ni ngeen ko gisee rek dama fi dajale sama collaborateur yi nga xamante ni ñoom laa am yëpp si mouvement Siggi Jotna pour ñu waxtaan ndaxte bi ñu génnee si élection ba léegi euh, waxtaan bi amul. mën a ku si nekk wax naka lañ mën a taxawee naka lañ mën a demee. pour teg ay stratégie yoo xamante ni day da nekk stratégie yoo xamante ni naka la ñuy gën a yokkee sunu mobilisation mouvement mais aussi naka la ñuy mën a téyewaat consolider li nga xamante ni moom la ñu am moo tax tey ñu woo sunu responsable yi nekk ci commune bi yépp ñu mën a toog waxtaan ak ñoom. ëllëgu mouvement Siggicoor comme euh, ni ma ko waxee sànq rek je pense que ni tey. ñu fi tey def réflexion pour déclarer suñu candidature ndax euh, dañu nekk ci processus de dialogue. le dialogue national donc euh, kenn tënkagul li nga xamante ni noonu lañ war a demee ci élection locale mais aussi lu wolof naan xodiku bala ngay makale ku xam mouvement Siggi Jotna xam ko ni mouvement bo xamanteni ci terrain bi la nek ñun duñu xaar ba affaire yi dëkkati ni jon ñuy jóg a di waxtan parce que ça fait presque 3 ans ñu ngi former suñu cellule former suñu comité te je pense que tay occasion la pour ñu toog ak ñom tan ak ñom ngir fi nga xamanteni mom lañ bëgg jëm donc nak tay ñun dañu bok ci coalition moy la coalition Benno Bokk yakar ba Thiès ñëpp xam nañ ne Ablaye Dièye mu ngi fay jouer un rôle très important donc nak tay ñun dañuy euh, am ben discipline bo xamanteni mom lañuy doxé ci coalition bi donc bés bu joté dinañ toog ñun ñëpp euh, responsable yi nekk ci coalition bi ñu waxtaan naka lañuy mëna démé ci élection yi mais je pense que tay li gëna am importance mooy taxawaayu mouvement siggi jot na ci Thiès. nit ku nek bo nekkee sa gox soo fa liggéeyee je pense que ni meun nañ renverser cette tendance bi pour que la coalition ben Bokk Yaakaar mu mën na gagné Thiès. ñun suñu base dafa nek commune est parce que ku xam Ablaye Dieng xam ni commune est la bokk donc aussi nit ku aussi euh, da nga wara euh, fixer sa base. ëllëg lo fay wuti nga mën ko am. so amul ndam ci sa gox am mo ndam fenn mais aussi am na ay militants ak collaborateurs dans la zone ouest, mais, également dans la zone nord. Donc, nous aussi, ils sont venus répondre à cette conclave nous waxtaan renforcer massifier parce que tay dañu un mouvement dans sa globalité pour tout Thiès parce que les nañ Thiès nous xamante ñu ngi ci commune nord sommes ngi commune est ñu ngi ci commune ouest